sadaqallaahu l-asiim ngeen baal ma ci baat bu naqari bi waaye il fallait que ma ma tajwid ko même su ngeen di xëm te maa dàq sama maam nag baat heureusement sama bàjjen mari ñëwul sama maam daal ne ci néeg bi di jàngal xuraan Mbàkke dal Ali Imran ma nga naqaree naqaree naqari sama ñoom bàjjan tàngal kafe pour neexal ko pour mu noppi <laughs> maam yi Xaadim Njaay mii la sunu maam waaleykum salaam jërëjëf def léegi bi ñu ñëwee di ko yët café bi fekk ko muy jooy sama bàjjen mën na ko bàyyi looy jooy mu ne ko baat bu neex rek ñoom ñu ngi koy kafeel pour mu noppi ñu ngi jooy ndax baat bu neex parce que nag loolu la yàlla defal nit ku nekk sa baat ni neex ci yow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 bu ngeen ma tabaxul ay toilettes fii ci jàkk ji nee baat bu neex bi woon ci toilettes yi dañu waroon jël toilette rek tabax ko ci kaw jàkk ji su ko defee neexaayu baat boobee kon dugal ko waaye mbokk yi laa yi ma doon jàng ngeen baal ma sunu borom daa wax ne mi ngi nuy fàttali xisab lóot ak i mbokkam lóot daf ne ay mbokkam li ngeen di def nii yéen a ko njëkk a def ñu ne ko lu ñuy def mu ne xanaa góor guy wut jabar ju góor ak góor guy wut jëkkër di dem ci góor ñi bàyyi fi jigéen ñi daal leen ci tegal yéen a bon la araf la ko yàlla wax aaya quatre mbokk yi balaa ma ñëw ci tomb bi ci tege xam ngeen la ma ci daan teg mooy damay taaja bóon taaja bóon sama taaj gi bala ma koo bàyyi ku nekk joxe biir Abdou Jàmbaar Njaay ñaari malaaka la nee na bu kenn joxe pièce mbaateb CSA <laughs> wasalaam ana Baay Faal yi génne leen mbuus yi te dugg ci nit ñi fu ngeen fekk nag Salif Sow na joxe vingt mille fu ngeen fekk Fat Diallo na joxe vingt mille fu ngeen fekk Aminta Diop fu ngeen fekk Mbacke Sylla fu ngeen fekk euh, Mansour Ndiaye fu ngeen fekk Jibril Fall fu ngeen fekk Alaaji Ñang bu leen kenn jox moyen de vingt mille ci ñi ma ana Kolle Kolle ngi ñëw fa génne joxel leen ko taajaboon boon sama taaj gi bala ma ko bàyyi <laughs> biir yi génn Abdou Jàmbaar Njaay ñaari malaaka la na bu kenn joxew cent mbaab 500 mbàkke suñu taalibe bi soxna Kumba Jóob waaw amin dellu wax amin rek waaw yow bu ñëpp melal ñëw taaji bon mi moom ah. non 500 merci waa kay benn tali jërëjëf madame benn 500 non pièce non ah ci nekk leen ci ma continuer na mbuus yi fees nag Mbàkke yonent yàlla loolu amoon na fitu dénoncé lu baaxul lii ba jeexal ko nag innakum musrifun innakum antum qawmun musrifun bokk mun leen yéen a bon loolu leen ca tegal même su fekkee day tàqali ko nit li ko yàlla sant ñoom wax ko du dëgg loolu tam lañ bëgg ci penc mi ku ci nekk bi wax sofisu min kitaabillah wa kaanu ali shuhada fala tax suur naa si wax saw ni ngay doxal wala tasru sama samanan qalila ngay doxal boo ko defee mu dox loolu alxuraan la ñu ngi koy jàng ba léegi te dañ ko jàng ba yombal xiyaam ndax mu nekk darsan lil faailiin képp koy def rek loolu nekk bind bu lay xamal ne lii ngay def nii boo ko ñuy defee fii la yàlla jaar ñoom kon nag bul xaritoog ñoom bul ànd ak ñoom bu leen far bu leen xam bu leen bëgg bu leen dimbali ar rasulu sallallahu alayhi wa sallam àdduna ci yonente bi salaam daa wax ne bu ngeen gisee góor gu nangoo doon jabari góor li moom mbaa góor gu nangoo am jabar ju góor ni ma faqtulul faail wal mafula bi ki ko nangoo def ko ki nangu ñu def ko rey leen ko kon moom jàpp na kirim la ki ko nangoo def rey leen ko ki nangu ñu def ko ko rey leen ko loolu la yontu bi jàngale loolu la yonent bi jàngale sallallahu alayhi moo tax euh, loxo moo war a am bu mën a taxaw di jàpp ci loxol bi koy def waaye nit société en tant que société nit mun te yar morom ji Mbàkke nag bi sama juróom lu tomb mooy droit de l'homme yi droit de l'homme ni ko Saddaam Njaay junj léegi duma ci dellu waaye mooy ñoo xam ne ñooy topp nit ñi naan leen nangam seen sañ-sañ la bu ñu reyee nit bu ñu reyee nit bu lislaam ñëwee ne ki rey nañ fayul kim rey droit de mooy wax non ginnaaw rey na ko baal leen ko ndax bu ngeen reyee keneen rey gi day bari sunu borom ne bu leen ma jaaxal ki rey dangeen a war a fayul kim rey waaye droit de l'homme du jox benn àq kiñ rey ma man boo yëgaguma ko waaye kiñ rey moom mu ne ki reyee moom moom mën nañ ko wutali àq fexe ba mu raw fexe ba mu mucc fexe ba mu génn fexe ba fexe ba nangam moo tax léeg-léeg nit na ci pénc mi ne dama bëgg a def nangam ñu ne sañ na ko rëddal ko ay loi bindal ko fi mu war a jaar pénc mi tàmbali ko ko nangu te bokk pénc mi ñun ñépp bu yàlla yi duma ñu tëral loola duma waale yi ndax accident yi kat daanaka fi ne amul kër gu ci mujj accident yi ak mbugal yi ñu yàlla teg daanaka amul kër bu ci mucc ñépp a ci laal kere bi yàlla dévaluer CFA ku ci mucc kenn kenn mucc ci moo tax bu yàlla wàcce mbas mbaa balaa mbaa nattu ñi ko fekkee ñi seetaan ña ca bokk ñépp li yàlla boole mbugal mu tax droit de l'homme dañoo war na fexe ba ki bëgg a yàq penc mi kooku lañu war a téye ci loxoom ndax ci démocratie mbooloo mi liñ ne noonu la loolu la war a ànd malheureusement ñun Sénégal suñu dañ ñuy séddale ab téeméer amir téeméer lañ ñuy séddale ñun ñu ngi nekk juróom ñun fukki nit ak juróom xanaa kon war nañu jox juróom-ñeent fukki dërëm ak juróom déedéet ñu jox ñu juróom fukk nañu yéen parce que nous sommes yéen ak ñi fi bokk nekk yéen a war a yem ci téeméer bi loolu de lan nu def te it gëstuwuñ ko nag dañ naan waaw rek dañ naan waaw rek droit de l'homme mooy sañ-sañi nit nit am nay sañ-sañam waaye daa am fu mu tàmbalee daa am fu mu yem teg leen seen baaram foofu mbàkke lu dem julli ji te ñëw du dëkk suñu julli jee ba ñëw des na ñetti tomb ak ñeent ak recommandation yi nga xam ne suma ma sañoon ñépp fekke ko yàlla nanu yàlla nangul suñu julli yàlla nañ ñu yeex a jullee Euh, maa ngi tolloon ci droit de l'homme yi ak yëf yi moo cee topp nga xam ne ñooy tëral luwaay pénc mi nañ bàyyi xel ci loi yi sàmm pénc mi bañ a defe ne rek lu neex waaye sañ na ko def yonent bi nee na ñaari mbooloo dañoo àndoon di tukki mbooloo mu baax ak mu baaxul bu ñu ñëwee bay jël gaal mbooloo mu baax ma féete kaw mu baaxut mi na ci suuf mu ne mbooloo mu baaxut mi buñ soxlaa ndox dañuy yëg ci kaw mais yëg bi nag xaw naa déranger ñi ci kaw ba pare déranger leen ñoom ñi leen di déranger ñu def réunion ñu ne ñun ñi ci suuf nañ bënn fii ndax ndox mi ñëw yonent bi neen mbooloo mi ci kaw li ñuy baax baax buñ seetaanee ñu foqogaal ndox dugg ci ñoom ñëpp ay li muy tekki mooy lii xaw ci pénc mi di réew mi ñu bokk ñun ñëpp li koy yàq buñ ko seetaane ba mu yàq ñun ñëpp ay bokk yàq la te am na ci ñun ñoo xam ne amuñ nationalité fenn fu dul Sénégal gii kon buy tàkk fi la ñuy toog bu jagee fi la ñuy toog bu naqaree fi la ñuy kon nag nañ fexe ba mu neex ma jeexal ci mbugal yi nga xam ne mooy xaar kuy def góor jigéen ak ki seetaan ki bàyyi nga def alxuraan andi na ci ñaar benn ba wax naa ko inna munziluuna ala ahli haadihi alqarya rijsan min as-samaa bima kaanu yas dégg yàlla nee na dafa yebali malaaka ñu dem ci dëkk ba daan ne lootun ñi nga xam ne ñooy tooñ ci dëkk bi yàlla dana wàcc mbugal mu jóg ci asamaan dal ci seen kaw Ankabut aaya 34 jërëjëf wa amtarna alayhim matara fanzur kayfa kaana aaqibatul mujrimin ma nga ca la araf loolu tam mbugal la yàlla mu ne maa taw ci ñoom ab taw ab taw nag lu la la mën a teg bu dee ci sunu yonent bi waxoon naa sànq ne daf ne ku ngeen fekk mu koy def na rey ka koy def ak ka nangu ñu ko koy def bokk na ci mbugalee yonent bi ne yàlla bu yàlla yërëm ka koy def ak kañ koy def yàlla bu yàlla yërëm ka koy def ak kañ koy def yàlla bu réew nag buñ buñ ci waxut dara yàlla daf leen di jàppe ni ñoom ñëpp ña koy def defe naa fàttewu leen bañ fi jàppee gaa yi bàyyi leen ñun ñu doon def def marche waaw maag ndey fa drame ma leen day sànn ñu doon ko lacromation euh, sapeur yi jël si ko léegi daa génte ni ma oustaz dama am lu ma gént mu ne ko loo gént mu nett la ko nag ma ne ko da ngay bëgg a dem jaar man mu ne ma luy jaar mu ne ko ah loolu la gént gi tekki ndeket yooyu jaat bi mooy day dem grande mosquée ñu ko lakkar ma seen yéen yóbbu hôpital yàlla ko yàlla yóbbu Oustaz Mbacké lii ma doon man tomb bi ma doon indi tey ci penc mi sof ko ci waxtaan Oustaz Ahmed Daam Ndiaye yàlla na yàlla nangul ko nangul nangul leen mu ñër yàlla ñu boo fekk diwé taajiboon mi nag dafa mel ni gisuguma dara waaye xam naa ko dem daa sakkanut ma jeexal ci tomb bi ma bëgg a wax mooy sant mboolem ko fi teew fi nga jóge jege na sant naa la fi nga jóge sori na sant naa la am nañu mbàkke jaaroon ci seen i surtout moo xam association yi la moo xam mbooloo yi yal na yàlla fay leen am na ci ñu ma xam ne bi ñu ma nuyoo fii sàlla fañ jóge sori na lu dëgg waaye lépp rek yàlla na bokk lépp rek ndax diina day toll foo xam ne lu ca waaye def ci sunu ñu xorom rek yaa ña fekk woon badar yéen a yem yal daal defe leen moom ñaareel bi sant ñi doon organiser lii teg cant gi ci loxol alaaji Fall mi jiite Baay Fall yi alaaji Ñang mi jiite Baay Fall yi lii moom moo koy dox moo ciy wax mooy dem ci police yi dem ci gendarmerie dem ci alkaati lu ni mu dugg ca ba li taxaw caméraman yi siège yi nu toog euh, tribune bëri alaaji Fall yaag Baye alaaji Ñang yaag Baye Fall yi félicitations et sécurité bi ngeen àndalit muy sapori ña nga nee taxaw macha allah euh, gàcce ngaalaamaa ñoom ndax moom rek laa gis koor boo xam ne kenn mulli na korom Mbàkke sapori ki mulli na korom ku ne lacc rek ñu yenu dem yóbbu ñu si jël kenn yóbbu amul corompe déedéet loolu dama wóor na moom merci les sapeurs ah sapeurs yi merci commissaire ana commissaire Sagna nag merci commissaire ñoom it dugal ko ñoom tey jii fii tabarkal la mën naa ñu taxaw seen beere yi tubaarkàlla euh, régler lu ba ñu ne cocc seen ngeen seen oto baa ngi ne ñu taxawal bu ngeen demee ngeen di seen kilifa Alioune Sall nee na ñu leen di jaajëfal moo tax du ma romb kenn ci yéen ci télé bi mu yëkkati loxoom tuyoo baale wu ko gendarme ak alkaati Mbàkke su ma rombee rek foo du ma la sax foo boo yëkkati loxo ma lay yëgal door laa laaj nag foo jëm boo dawalee ba nga ne fii la ma wàcc. yàlla yàlla fay leen parce que dama wóor ne fi ngeen jëm ñun ngeen fa jëmal fi ngeen jóge ñun ngeen fa jóge merci les policiers. di jaajëfal mboolem ku dugal loxoom ci lii ba sotti lii kat Aliou Sall mënu ko amul budget denc la ci kaw tant bi boo laajee waa xel comme base. xaalis la de am de ñoral la say nii indi la say siis ak nangam waaw ah, Baye Fall daal tuddoon na ma 3 millions budget bii def lii lépp tey toxal lii yóbbu ko feneen dana tax nu wër ko duñ ko daj ñu bëgg di ko def fii rek ba baa ñu am juróomi tànt kon nag ku ci jàpp ci jege ku jàpp ci sori yéen ñëpp njàggeen jëf yal yàlla fay leen taajaboo am nay pièces de waaye yéen ñor pièces indi leen pièces kon borom seesaa yi te mën ngeen a ndax pexe amul ah, ganaar bu moo toor ndongo njaay ba ñu am ne sikket bu fer daaw ndongo njaay ba ñu góor jullit bi yow junni bi sa yaay yal na la yàlla tàqalee junni te may lay junni merci nuyul ma sa yaay bi dégg nga ne ko moo gën nogay waaw góor merci beaucoup ñu waa Tivaouane Peulh ak Ndinde Gueye dégg nga ginnaaw bi ma jógee ci sant mbooleem ku ci dugal loxo musari mu njëkk tàmbale ci mu le maire mii ak ñi koy jàppale mboolem ku dugal sa loxo ci liggéey bi rek ñu ngi lay wax jaajëf di la yi ci biir Dakar ci biir Sénégal ba ca diaspora cellules yëpp ñu leen sant di leen gërëm ki fi jóge léegi Amar Ndiaye ci diaspora bi la jógee ñoom Bécaye Sène na nga ca itali seen loxo ñëw na bu baax a baax kon sëriñ bi ci biir dëkk beeg biti dëkk bi yëpp gàcce ngaalaam léegi nag am na doxalin bu ñuy wax ci kanam boo xam ne bii sëriñ bu nekk na ci bàyyi xel ginnaaw loolu ci cant gi ñu sant mboolem ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom. liggéey bi ñu tuddee liggéeyu daaw amiru jamaatu Badou Rahman yi nii toog noo bokk liggéey Oustaz Ahmed Daal Ndiaye nii tafsir Moussa Gassé Aliou euh, li ñoom ñoom Cheikh Diagne Bouy képp koo xam ne daal dañoo bokk liggéey bi ñu tuddee jàng ak jàngale fu rek fu jege jërëjëf yàlla na yàlla fay leen di sant itam bureau bi nga xam ne ñooy daje sama kër alxames bu jot buñ wàccee seeni bureau door a ci kër gi di ba dix-neuf heures wala vingt euh, moo koy jiit yal na la yàlla fay suñ mbàkki mii ca la bokk Mansour Baye ca la bokk Jibril Fall ca la bokk soxna Fat Diallo mbële ca la bokk ak Kolle Fat Diallo merci defal nii sa loxo waaw góor li ngeen def lii lépp yéen a ko def ndax yéen daje naan nañ def nangam nañ yëkkati nangam nangam ëpp naa def yàlla xam ne dama ne mujj yërëm leen waaye nag lii jar na ko te bu ëllëgee bu yàlla yi fay bu leen fayee da naa suñ njëgul yokk suñu loxo yàlla yàlla fay leen di sant nag ki war na njëkk a sant muy sunu borom bu yendoo woon taw tey jii du baax ci loolu am de ba muy taw démb mën na ko sunu borom dimbali nu rek li nga bëgg a taw lépp taw ko ci guddi gi bu jeexut boo xëyee nga taw ko waaye daal lu dimbali li tàmbalee ci dix ba dix neuf heures waaye bu si taw far na ko def nag am de yàlla xam nii laa ko waxee nii laa ko waxee keroog dañuy denc yaayu Maodo loolu laa waxoon suñu borom yaayu Maodo yàlla ko yàlla yërëm def na mu Salim Sall bi naan li ma xawma Serigne bi am waaye dama laa gëm ndeysaan mu ne su ma faatoo ñaar laa bëgg na ma tiim na nga yóbbu Daaru Salaam bu la fekkee conférence bi dafa bàyyi conférence ba te ñëw am de keroog bañ ko tëralee ca taabal ja sang ko ba noppi mën a noppi ngeen ñu ne waaw sang ngeen ñu ne waaw ma jël sama sa armal ba ma woon naa sang ko ca kawam ne leen suwalaale leen ko waaye yàlla ne yàlla soxnaa ngi nii soo xam ne yaakaaru mu woon man en tant que Alioune Sall yow mii la yaakaaroon dafa xamutoon terme bi mu koy waxee moo tax mu wax ma lii rekk bul xool ni ma toll na ko fekk ci gëmam gim gëmoon ni ma toll nga faye ko noonu noo def ak man baax na yàlla ko yàlla yërëm yaayi Maodo mbokk yi ginnaaw cent yooyu ngërëm yooyu loolu mooy li ma ci mën a wax waaye li ci xol bi mu bëgg koo wax mënuma ko waaye yëg leen ne cofeel bu ngeen am ci jëmm ji ju ko raw la am ci yéen li yàlla ne woon yonent bi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa mayoon boo ëllëgee ku leen xam dana dugg aljanna waxuma laa yéen yal na yàlla fay leen cofeel ngeen am ci ñun gu ko raw lañ am ci yéen ma bëgg nag ni ma ko jinjee bi ñuy bëgg julli ji dafa am école bu fi nekkoon bu ñuy wax yow Salim ñu bari jéem bi ñu yor programme national yor yarub diine nekkoon fii ci réew liñ bëggoon ci suñu doom yi ñu mënoon ko ca am léegi nag nekkatuñ fi ñuy jël suñu doom yi di ko yóbbu ci école yoo xam ne du jàngale suñu diine duñ yar ci suñu diine te sunu diine ma ngi leen di déranger ba ñu commencé dàq suñu doom yi ma defee ne nun ñii buñ joxante woon loxo man a am école yu mel ni yow Yawwi Salim yi ci dëkk bi am ko ci réew mi maa ngi yéen ko mënuma ko nag waaye buñ àndelul ñépp nu man ko moo tax ma leen ci woo yéen ñëpp bi nii rek la daara jeex bu ngeen fa deme teg naa fay carte demande yoo xam ne ma na junni carte ak juróomi téeméer 1000 francs lay jar dem leen ngeen jënd ko jënd leen jëndal seen yaay jëndal seen papa jëndal seeni jëkkër jëkkër yi jëndal jabar yi loolu daal mën nga ne leen ca taabal ja man nag jënd naa mbàkke sama carte nii suma poos wala ba ma solon bi may bi may xëy si la ca booba laa ko def ci suba laa jënd jënd leen ñu def ko ci liggéey bii ma bëgg nu def ko nun ñépp te mooy am école boo xam ne dana mel ni école yow Selim am ay jàngalekat yu wér ay professeurs yu wér ay yarkat yu wér xanaa kenn ma fekk naa mu réew leen Abdourahmane te nosi bi dama koy def ker maam suñ tubaa di di di jox ju di teg jumaa ci loxo sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha dafa waxoon rek ne képp koo xam ne yaa ngi wékku ci kër gi rek ñaar fukki doon juróom def doo ngaa lay laaj bàyyi laaj ci nii ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett bi ko ñëpp joxee nu jàpp nu nu jumaa jamel àgg sëñ falu ne ndokk dëkk baa ngi nii jege carrière dem leen yenu ci ñu far tudd dëkk ba ndokk looloy benn bu ñaaral ba ku jënd carte ku nekk maa ngi lay ñaan nga sasoo nga sasoo di dugal ci liggéey bi ak mu jot vingt-quatre mille lañ la ñaan Sall Sall moo ko ñaan nga may ko vingt quatre mille par douze mois may ngeen ma ko yëkkati leen seen loxo yéen ñi ma ko may ku yëkkati sa loxo nag damaa jàpp nit ma ma ko ah nay leer kii du ma am kii jaay ah yii man maa koy gis ni rek xaw ma ko woon anamu ngeen baal ma nag sama ski la yor mu siir bu ndaw nii comme déggu la wala ma far wax ko donc vingt quatre mille par par an mooy deux mille francs par weer la tàmbale ci ñoom Idrissa mais ak Baye Mbaye ak mën numbeeg ñépp nag laa wax naa ngeen ko insha allah yaay daal ana parisien toi et parisien waaw ñoom ñoom a may teeye daalu cib bi yaay daal kee toog nee ak boroom këram

mustawa xale yi ba baa ñuy am lycée collège ba ba baa ñu dem université ñoom docteur Abdoulaye la mii xam nañ ci dara ndax ñoom ay inspecteur lañu loolu kat mooy tax liggéey bi ñu mën a am suñu école yi bopp yooyu xale yi daañu fa jàng nu yar dëgg la nag gis ngeen xale yi doon naaj fii fi nekk nii 300 lañu 20 ñoo ñëw ñii rek parce que ñoom ñëpp xajuñu fii. na ngeen nu ko may ba ci teg mooy calendrier ñëwati na ma nga fële ana Omar Dramé ku fi bokk sili balaa dem na yóbbu juróomi calendrier jënd benn jaay ñeent bu mu indi pi bu mu indi weccat na ku yóbbu cinq cinq mille dana amee bu jaree yaa xam bu jaru salaamaaleykum cadre bi président nee na cadre musulman la jërëjëf sànni hijriya la moom moom la waa ji yor lii di jaay ndeysaan suba ak léegi jaayagul juróom yàlla na ko yàlla juróom kalaal ko jaay du ne naa la kalaal la dañ koy maye waaye Alioune Ndiaye mu sosaat xaw anam mooy génn ci télé bi di wax dimanche soir xaw ma noonu la émission boobu Alioune moo xalaatoon ne ginnaaw day jënd nangam ci daara bi te moo fay ay clarifier su ko defee bu ñu defalee mille buñ ko jaayee ak million jënd ci ñaari tonne ñetti tonne ceeb ñeent moom moo ko xalaatoon moo tax ba léegi ñuy jaay clarifier yàlla nu yàlla yërëm daaw daal lamboon daaw clarifier dafa lamboon ndeysaan ku nekk na jë Omar Dramé demal fële ca taabal ja ku nekk na jël juróom fay benn dese ñeent waaw ñëpp la yaay daara fat jàllu benn tëleer fat jàllu kër ma saara ku lim juróom yaay meer ma jàll mu nga joxal meer ma jàll juróom meer ma jàll nee jox ko diis soo mi ci ballak barki ji mi ci ñaani faal yow sa faal deux ailes la du benn dégg ba ca teg ci recommandation yi su ma sañoon ginnaaw weer wu jot dañuy tase daal tubb tudde ko euh, ziyaaru weer wi muy am premier samedi su ma sañoon ku jàpput lool mu bokk ci yi ngay fekki maa ngi wax Xaadim Caam ne ko dañ fee bëgg a tëral programme incha allah saa bu nit ñëwatee am lum yóbbu ñu ngi koy tàmbalee ci nu ñuy taxawoo ak néew nu ñuy taxawoo kuy sukuraat nu ñu nu ñuy nu loolu lañ ko bëgg a tàpp nga xam ne bii ñëw incha allah di premier samedi ci weeru octobre ca lañ koy door fi sañoon nag ku nekk ci mboolam mi te man di ko fekki nga ñëw fekki ko li ay flyers la yoo xam ne day yëgle ne Ali Imran am na centre bu bees bu nekk ci Liberté 2 villa 16 euh, 13 dafa war ubbi benn jardin d'enfants islamique petite section moyenne section ak grande section mooy flyers yi ngeen di gis yéen ñu dëkk ca boor booba te bëgg caa ñëw ndax dafa amoon benn loo xam ne dañoo jékki-jékki gis ne bu mardi gras jotee te chrétien yi moom ko nu gis ne ñi ngay def suñ daar ja mardi gras te it xëccoo baaxul jàppal baaxul kurpañante baaxul ñu bi jeneen daar joo xam ne jii daara moom incha allah su mardi gras jotee te ñu bàyyi ko seeni borom te ngeen baal wax naa dëgg rek bi ci tege mooy màggale ngi ñëw gàmmoo ngi ñëw suñ masaan di màggali dañuy yóbbaale ndox bu ñuy gàmm ji yóbbaale ndox na ngeen bàyyi xel ci dugal seen loxo ci waajaayu màggal ak waajaayu gàmm ndax Ali Imran day màggali Ali Imran day gàmm ji day gàmm ñun ci li gëm li fi mag ñu indiwoon noonu ci lañ bokk ndax ala azimoo laylal wilaati xisbatan maam si Cheikh El Hadj moo ko wax te ñun gëm nañ ko waaw kay jërëjëf merci merci kay asam jërëjëf doy na dégg nga doy na moom kay xam naa ni ñëw nga léegi waaw baax na waaw garaaw bi nii dégg kon nag li jëm ci waajaayu màggal ak waajaayu gàmmu centre baa ngi leen ciy xaar incha allah bu juróom-benneel bi ñu waajalit sunu gàmmu fii du sori 9 sept 9 novembre du fa sori ndax ñun sunu gàmmu mooy premier samedi ci weeru gàmmu saa bu weeru gàmmu feeñee neel samedi la gàmm ga jëwru laaj kenn saa bu weeru gàmmu feeñee neel samedi la gàmm ga fee la ñuy tant tant yee ngeen seen foofu lañuy ñuy gàmm daan ko laaj juróom sëñ moo duggee waaw jox ko juróom ci mu dem ñëw bokk mbuus juróom-ñaar bi te mooy bi mujj ci recommandation yi mooy seew xaay daa war a tàmbali bu octobre ak xale yi di tàmbali des nay jekk-jekkal sa biir des nay jekk-jekkal ak yëg-yëg siiwal jekk-jekkal yooyu bu dee peinture jokkooloo noddkat bi nodd léegi Youssouf Montero ngeen jekk-jekkal pap baa nga nële bu fekkee ñi buur ngeen jekk-jekkal def seen yëgle defal ñu Sud FM yëgle ko ba ñëpp yëg ne daara yu seew xaay croisement Moundiane day ubbi octobre peut-être le cinq ngeen xam le six yéen a xam waaye daal dafa daara yi dox nag ña ngay dox jekk-jekkal moo ca des ak yu ne dem jundey fa Abdoulaye ca Mboro juru sas sar ci Thiès ak ju ko sas kan ca càlle waaw mbokk yi yàlla na ngeen fekki déwén yàlla na ngeen fekki déwén bu leen fàtte ñaanalaale sunu mbokk Ousseynou Cissé mi nekkoon rajo Dunya ñoo moom Ousseynou Cissé gaañu na barki dem denc nañ ko tëddoon na nag tëdd bu yàgg yàlla na ko yàlla yërëm biñ fi jóge daaw sunu mbokk Fallou Cissé mi ngi dund ci weeru koor weesu la ko yàlla jël yàlla na ko yàlla yërëm yaatal làmmeelam woye fa suuf ci kaw sama xarit Oustaz Camara Ousmane ngi dëkkoon fii heure bi daal mi ngi toog fii man jaale jéeguma ko sax ndax daf ma bett fay ma doon nekk ca néeg bële di garder bagage bi ñu fiy jóge daal fi lañ ko bàyyi yàlla na ko yàlla yërëm ak ñi ngeen fi xam te xaw ma sàmba ñoom sunu mbokk mi fële toogoon daaw jaay calendrier Ablaye Camara ci daara ji la bokkoon moom tam fii la dëkkoon sunu kanam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ba yaayu xaadim njaay mii daaw dañ fi nekk mu ngi ci mbooloo bi moom it yàlla da ko jël ak ñi ngeen xam te xamuñu leen ak ñi ma te xam te xamuñu leen ku dugg ci biir doo génn waaye daan ko ànd ak nag suñu mbokk Jibril Fall ma woon yàlla ko yàlla yërëm ak suñu suñu sëfoor ba Lamine Diop Dakar bii moo si dàqoon keroog bañ ne ma dafa def sox la ma wax waa ji daf na dama ne ko xanaa dawalu mu ni ma déedéet ma ne ko waa koy li ma xam ci dawalam waaw loolu laa ko xamee woon yal na ko yàlla yërëm am na bés maa ngi koy nettali dañoo ñëw ci eh, caaro yi foofu ñoom docteur Abdoulaye Lam dëkk ñu fekk fa ndox mu bari oto yëpp taxaw mu woon ginnaaw ndox mi rek naa sa arrière yaa yàlla xam na ko maas arrêté dugg ci ndox mi rek ba ne fël fële mu ne ko kookan ci suñu ci loolu moom rek laa ko mas a gis ci moom rek la yemoon laaj ko mbàkk si yàlla ko yàlla yërëm suñu mbokk ma njag a géey keroog bañ tegee xeer bu njëkk ma ca daara ja la gàddaay ñëw fa ne ma loo am ci ciment rek tooyal na taxawal moom jox ñaari dërëm